ok alhamdulilah wasala allahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom mi ñuy wërsëgal ñu dajewaat ci ab néegam fas yéene fàttaliku lenn ci la ab yeneen tam doon wax ca di ko jëfe ca mu joxoon ñu ci ndigal ne wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu yonent bi indi jël leen lu mu leen tere bàyyi leen ñu tappoon suñu téere bi di bulughul maram bu alxaafis ibnu xajar rahimahullah mu dajale ko ci ay téere yu bari ñu nekkoon ci téere bu mujj bi ñëwoon teyit ci juróomeelu bunt bi ci téere boobu di kitaabul jaami muy baabu targhib fi makaarimil axlaaq buntu xemmemaate ñaaxaate ci jukko yu rafet ñi ngi nekkoon ci fukkeelu xadis bi ci bunt boobee muy wa an abi darda radiallahu anhu an anabia sallallahu alayhi wa sallam qaal man radda an irdi axiihi mi ngi noonu de mool bi ma yor mi ngi tombe mille cinq cent cinquante deux wala cinquante sept waaw kon incha allah ñu jël ci njàngeen mi
وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض اخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامه اخرجه الترمذي وحسنه ولاحمد من حديث اسماء بنت يزيد نحوه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله تعالى اخرجه مسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام
kon mbokku bunt bi mooy xemmemloo nit ñi ci jikko yu rafet yow mi fi nekkoon dimanche bi wees xamoon nga ne ne jukko yu rafet bokk na ci li gën a màgg ci suñu diine ji ba rasul sallallahu alayhi wa sallam wax sax ne amul benn poids bu koy gën a diis ci balance bi si penc gannaaw ragal yàlla xadis bi ñuy jëkke tey an abi darda radiallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رد عن إرد أخيه بالغيب koo xam ne danga delloo ay défendre ay fegal sa deru mbokk mbokk jullit ci loo xam ne kumpa la radda allahu an wajhihi naara yowma alqiyaama yàlla dana ko fegal la nga xam ne ni mooy sawara yowm alqiyaama wali ahmad min xadisi asma bint yazid naxwu imam ahmad soloon na xadis bi gannaaw ba ko tirmisi génne ahmad it soloon na ko mbokk dañuy gis ne foog na bokk na ci waxtaan yi paase suñu borom mooy nattoo ay jaamam lu ko neex di araamal ci ñoom di daganal ci ñoom mu am lum jafe jafe jafe lu mu araamal ci ñun ca mooy jëw mbokk jëw nekk na lu jafe mucc ndax bu doon déggin ba ca nit ñi amoon rek ca la yem loolu de problème ndax sahabatul kiram kat ba suñuy yonente alayhi salaam ne ndax xam ngeen luy jëw ñu ne ko ah yàlla ak yonente ma nga xam mu ne mooy nga waxal sa mbokku julit loo xam ne bu fi nekkoon du ko neex saxaaba yi ne waaw bu dee li ñuy wax am na nag mu ne bu dee li ngeen di wax am na yéen a ngi koy jëw su amul nag yéen a ngi koy dóoral bu doon te ne ne dóoral rekk araam te mooy waxal nit ki loo xam ne nii defu ko loolee day yàlla yombal na ko ci ñu bari waaye mu am nag lu jafe lool mooy sa mbokkam jullit sa jegeñaale la sa dëkkandoo la sa collègue de service la sa kum mën a doon def loo xam ne moom noonu la mel jëfam la moo ko jukkowoo moo ko def waaye nekk fi nga koy wax te bu ko déggoon mu naqari ko loolee mbokk dañuy gis ne jëw la waaye ndax jëw daa yem ca koy jëw rek déedéet mbokk kenn nit du jëw kuy jëw rek dana ci yóbbaale ñeneen heure bu nit ñëwee sa kanam di jëw keneen nga toog di dëggal dañ naan rek diw ak diw moo ma doon jëw maa leen bett ñi may jëw doonte ne ne kenn moo doon wax waaye maadaama yaa ngi toog di dégg rek bokk na ci musiba yi jëw da nga koy yóbbaale ña ngi koy dégtal loolu tax arasul sallallahu alayhi wa sallam ne koo xam ne nii day ñi ngi yàq mbokk deru deru mbokkam fu mu fekkewul moom mu def contraire u jëw ay daaji ne waa ji déet moo ne day kooku day ngay wax loolu ngay wax day nangam nangam ji amul waaye wala bu ko defee it day moom day xam nañ ci moom nangam ak nangam loo xam ne dana defaraat ab deram te it loolu mbokk xam ngeen ni lu jafe lay doon ndax képp koo xam ne mi ngi wax ci mbokk jullitam nga wëlbati ko attaqué ko pas attaqué sax mais défendre sa mbokk jullit boobee dana am ñagg-ñagg bu dox seen diggante loolu it doon lu jafe lool jafe-jafe boobee ci nekk nag moo tax sunu borom ne wala sunu yonente alayhi salaam ne yàlla dana ko fegal la nga xam ne mooy safara yowmal qiyaama yàlla dana ko fegal safara yowmal qiyaama ndax jëw nam mën a yóbboo safara fegal nit ki lañ ko doon jëwe it noonu la lay fegele yow safara ca it mi ngi noonu nit ki li nga liggéey loolu mooy lañ lañ mooy dañ lay fay donte ne ne waxoon nañu ca ba ñuy ubbi buntu jëw jëw yi lislaam maye waa ji jëw ngir day boole ku ko tooñoon waa ji jëw ngir day dénoncé koo xam ne ab warkat la muy bëgg a war nit ñi ah moytu leen ko de diw mii day nangam nangam fekk yaa ngi ci jublu moytulu nit ñi danger ak yan ca waxoon loolee da ngay gis ne taxul ñu koy tudde jëw bokk na lu ci gën a bonit ki nga xam ne day tasaare ay bidaa di tasaare ay shirk ku mel noonu itamit ñu koy wax ngir moytulu nit ñi danger loolee da ngay gis ne lu jaadu la ci ku mel noonu it kenn waru koo défendre mi ngi noonu mbokk bu ñu delloo ci xadiisu ñaareel bi mooy xadiisi abi hurayra radiyallahu taala anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maa naqasat sadaqatun min maal du wàññi mukk sarax ca alal dañ ko génnee wa ma zaada allahu abdan bi afwin illa izza yàlla du dolli ab jaam ci jéggale ga muy jéggale lu dul teddaange gum ko cay dolli wa ma tawaadaa ahadun lillah amul kenn kuy suufeel boppam ci yàlla tax illa rafa'ahu allah lu dul yàlla subhanahu wa taala dana ko yëkkati axrajahu muslim mbokk xadis bi dafay ñaax ci jullit benn mu bañ a nay doomu aadama li la yàlla wërsëgal boo ci jël di joxe la la seytaane di jëkk dugal sa xol mooy ah li ngay am day wàññeeku moo tax borom bi ne a seytaan yaidukumul faqra dalay wàññi dalay da leen di dig ak ñàkk waaye yonent bi alayhi salaam mu ne déedéet sarax ba ngay génne ñàkk amu ca tey waa ji amoon cent mille francs mu daal di cay jël dix mille joxe bu dee ci li ñu gis ci zahir ah wàññeeku na ndax cent mille loolu léegi quatre vingt dix mille moo ci des waaye déedéet mbokk quatre vingt dix mille yooyu yàlla dana ko barkeel ba mu mën a def loo xam ne nii cent mille francs du ko def te mbokk alal yàlla barkeel bokkul ak lu yàlla barkeelul loolu bu ngeen dee xool ñi nga xam ne ñooy salarié yi dag leen di gis góor goo xam ne salaire u deux cent mille musul tege ci loxoom waaye yàlla barkeel na ko yor na ci njabootam yor ci woy juróom tabax ci kër am ci lu ne nga gis koo xam ne nii musul fayeeku mooy cinq cent mille ca ci luyaas lay dee lu waral loolu mooy barke ba ca nekk kon alal soo ca jëlee sarxe la ca des yàlla da koy barkeel dàq lor ya ca naroon a dal yombal la nga xamee ni nii moom nga ca naroon a def ci lu baax lu bari loolu muy benn ñaareel bi mooy yonent bi ne wàññeekuwul naam wàññeekuwul parce que tey yow boo yoroon tey sa cent mille francs nga dem jënd ci portable bu cinquante mille cinquante mille nga dese mais ndax li nga yoroon wàññeeku na déedéet yaa ngi cent mille yaa ngi cinquante mille yaa ngi portable boo xam ne jaral na la cinquante mille naka noonu it la nga jël di joxe tuyaa ba jëm lay jural soo ko xamoon xam ne moo gën portable ba kon yow yoroon nga ab som gannaaw ba nga xaaj ko lii nga jël ko def ko muy ay tuyaa ba ca moo gën som bi desa la des kon ba tey wàññeeku mu amu ci ñetteel bi it mooy lu mu yàgg-yàgg suñu borom dana la wuutalal lu ko gën ñett yooyu yëpp dajale na ci sarax amul looy saraxe lu dul lu mu yàgg yàgg yàlla dellu siwaat ko ci nam génnee duune rek ne yow yàlla dalay dellu si la nga joxe woon waaye yàlla dalay dellu si lu gën li ngeen noonu dalay dellu si li gën mën nga am benn portable nga saraxe ko am benn mbubb saraxe ko am benn kër joxe ci yàlla tax du ne ak portable mooy dellu si wala kër ay dellu si waaye yàlla mën na laa jox lu gën téeméeri yoon kër ga ak portable ba ca loolu la yonente bi alayhi salaam béggalaatee ci xadis boo xam ne wax nañ ko fi lu yàggul amul benn bis la yonente bi wax amul benn bis bu jant bi fenk loolu yàlla yónni ñaari malaaka kii li muy wax mooy ay yàlla sa bépp jaam boo xam ni gis na sa buntu ngërëm mu def fa lam fa la nga ko wërsëgal yàlla na nga ko wutalal lu gën loolu te it ña ngay ñaanal ñay def fa yàlla def loolu ñaareel bi la muy wax muy beneen malaaka ba mooy ay yàlla su lépp jaam bu gis sa buntu ngërëm mu mën caa def te defu ca yàlla na nga koy indil ay tolof tolof looloo tax da ngay gis koo xam ne mën nañ nga koy dimbile ci dix mille nga bañ yàlla teg la ordonnance su cent mille ñu ngi noonu loolu kon mbokk julit hadis bi li mu ñuy ñaax rek mooy nañu xam ne nañ ñeme di def lu baax yonent bi alei salaam dane kullu maarufin sadaqa bépp njëkk rek sarax la commencé dépense ba ngay joxe sa kër la ngay jox nijaay yaag bàjjen yaag dëkkandoo yaag xarit yaag miskin yaag lépp loo xam ne sàkku nga ci ngërëmal yàlla loolee sarax lay doon beneen wàllu ci hadis bi yonent bi alei salaam ne amul benn jaam bu ñuy tooñ mu bale ci yàlla tax lu dul yàlla may ko ak teddaange lu dul yàlla dolli ko teddaange ca it mbokk nañu xam ne suñu borom mooy teral ku ko neex qul illahuma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha yàlla mooy teral ku ko neex bokk na nag nga ñu tooñ la nga mënoon a fayu nga bale ca yàlla tax ca mbokk suñu yonente alayhi salaatu wasalaam noonu la meloon yàlla nattu woon na ko mu dajale ñi xam ak ñi xamul saay saay saak n'importe naafiq ak lépp daje woon na ci kawam lor daana ko jóge fu nekk waaye daawul fayu ngir boppam amma diine yàlla ji nag loolu moom moomu ko te it loolu ngelaway de ko xàmmee dal xàmmee li nga moom ak li yàlla moom tooñ yi jëm ci yow bale ko mooy la gën amma lu aju ci diine yàlla ji loolee moom ndey ak baay ak doom ak amul kenn koo war a tolérer loolu donte ne it bale googee suñu borom ma ngi koy wax feneen wa amma man afa wa aslaha koo xam ne daa baal yéwénal te it ki ngay baal dañuy xool su dee ne koo xam ne dafa juum ngalawaay baal ko loolu mooy la gën amma koo xam ne nag dafa féttéerlu doon ab tooñkat doon yor jukko truand ku mel noonu dañ naan baal ko baaxut ndax boo ko baalee day dem lor keneen kon fa man afa wa aslaha mooy koo xam ne bale ga yiwin da ci topp yiwinal da ci topp mais bale goo xam ne ni day taxawaa ji gën a bew loolee taxul ñuy wax la nga xam ne mooy ak bale mi ngi noonu waaye daal képp koo xam ne yow tooñ na la ci nga mën koo baal ci baal ga di jur jàmm galawaay yi xamal ne loolu dalay yokk te daange donte ne seytaane moom la muy dugal sa xol da nga ñàkk fayda lu tax ngay def lii di toléré lii kaza wa kaza beneen wàllu xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne dafa suufeel boppam te yàlla tax fokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana ko yëkkati mbokk ki suufeel boppam te yàlla tax mooy ki jëkk a déggal yàlla déggal yàlla ca julli ya déggal yàlla ca koor ya déggal yàlla ci bàyyi yu xaram ya déggal yàlla ci jëfe teddaanga ya xam ne jaamu yàlla la dafa war a suufee ca yàlla tax mi ngi noonu boo xoolee lu bari ci jaamu yàlla yu commencé ci julli day jàngal nit ki mu suufeel yàlla rukkoo jël sa kanam gi gën a tedd teg ci kaw suuf aj makka ñu ne la demal summeekul sa silib sax summee ko woddul daal di làmbayo taxaw naan labbayk allahuma labbayk loolu lépp mooy ngir suufe ngir yàlla waaye tamit suufe ci jaami yàlla yi comme ne yonent bi alayhi salaam meloon azillatin ala almuminin fa bima ni'matin min allahi linta lahum suñu borom mu ne yow yonent bi xéewal gi yàlla def mooy da nga suufe nooy ñeel leen suñu borom it mu ne bokk na ci xeet yu mu bëgg dañuy tedd ci kaw yéeféer yi tar ci ñoom waaye suufe seen mbagg ci kanamu ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla loolu tax borom alal bi nga xam ne yàlla tax bu dajee ko amul da koy respecté jox ko cër borom xam-xam bi naka noonu borom ngóor gi naka noonu ndax moom day xam ne lii da koo teg ak jaamu yàlla rasul sallallahu alayhi wa sallam da doon wax naan allahuma ahyini miskina ay yàlla yàlla nag ma dundal may miskin nga rey ma may miskin waxshurni fi zumratil masakin yàlla nag ma boole ci miskin yi ca mooy ñi nga xam ne dañuy suufe bu daan lekk da daan sukk sallallahu alayhi wa sallam ñépp amoon ci moom accès way sunu yaay Aïcha nee na jaam bu ñuul jigéen daana ñëw ne yonent yàlla bi dama laa soxla yonent bi jóg mu dem taxaw ak moom wax ko soxlaam ci arab bu la waxee jaam rek waxuma nit ku ñuul moom beneen affaire la waaye donc woyefal boobu sa bopp loolu la jullit war a mel moo tax ak jullit ak moromam boo koy xool rasul sallallahu alayhi wasallam ne la boo ko rombee nga nuyu ko yow yaay milliardaire bi def njëriñ yépp kii amul dara suñu yeneen ci ne lay boo ko rombee nuyu ko yaa ko war a nuyu su la woo wuy jikko mi ngi noonu ak sa xam-xam fu mu toll ak sa alal fu mu toll bu la woo ci lu xaraamul mu ne waaw mu ne wéy jikko su sàkkoo ci ñëw laayi biir laayi ko biir su feebaree jógal dem seeti ko ilaaxiri loolee da ngay gis mbokk day wane suufee te yàlla tax mu safaanoo nag ñiy suufee ngir bëgg nit ñi jox leen am na ñoo xam ne dañuy ñëw sol ay sagar ñëw na yott yottaaral ci kanamu nit ñi ngir nit ñi jox leen mbokk loolu islam bëggut loolu islam bëggut loolu suufe ba ngay def da nga koy def ci yàlla tax soo ko de soo suufee ci yàlla tax yàlla subhanahu wa taala kama tudiinu tudaan la nga lépp rek la ñu yàlla fay amul kenn kuy suufe ci kanamu nit ñi respecté nit ñi jox ñëpp cër lu dul nit ñi yëkkati ko lu dul nit ñi fonk ko yëkkati ko amul kenn ku yàlla jox nguur wala xam-xam wala alal nga yëg sa bopp puukaru ci kaw nit ñi lu dul nit ñi xeeb la soof nit ñi xeeb la nit ñi bañ la koo dégg ñu ne accam lu waral loolu mooy da ngaa nekke ci lu yàlla bëggul mi ngi noonu yàlla na yàlla yokk ñu teddaange xadis biñ mujj a jël mooy xadisu abdullah ibnu salaam قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أي النين أفشوا السلام تسار لن أبنيو وصلوا الأرحام جوك لن سينمك وأطعموا الطعام ليل لن أو نيم وصلوا بالليل والناس نيام dee leen julli ci guddi fekk nit ñaa ngi nelaw tadxuluuna aljannata bi salaam kon day da ngeen dugg ajjana ci jàmm mi ngi noonu di xadis boo xam ni dégg gi rek dafay neex boo koy dégg mi ngi noonu afsu salaam silul arham ak imu taam sillu sallu bi leyl wa nas niyam tadxuluuna aljannata bi salaam mbokk lii mooy discours bi yeneen bi alayhi salaam jëkk def ca madina abdullah ibnu salaam nee na boobu moom ab yahud la dafa ñëw dégg ñu ne yonent jamono bi day mi ngi ñëw arab yi di ko teeru nee na ma dem bokk ca mbooloo ma bi ma ñëwee ba xool ko rek laa xam ni kii du ab truand kii du wax lu dul dëgg gannaaw ba bokk na la ma dégg muy wax mooy ay nit ñi tasaari leen nuyoo mbokk assalaam mooy lan ki ngay dajeeg moom ne ko asalaamaaleykum mooy yàlla na yàlla muccal la muccal la ci lépp luy loraate ci àdduna ak alaxira mbokk ki mucc ci àdduna alaxira mu àll ko ndax kooku mucc na déedéet ki nga xam ne àdduna mucc na ci diine muccul ndax mucc na déedéet kon asalaamaaleykum kàddu ga la muy gàtt gàtt mooy yal na yàlla defal la jàmm sa diine defal la jàmm sa àdduna defal la jàmm àdduna defal la jàmm alaxira loolooy mu ne dee leen ko tasaare na am heure boo rembee nit ne ko asalaamaaleykum fukki tuyaa baa ngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaar fukki tuyaa baa ngoog asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fanweeri tuyaa baa ngoog kii di Naafi bokkoon ci taalibe Ibnu Omar nga xam ne naafi boobu ci sëriñ yi gën a mag ci imaamu malik ci la bokkoon nee na damaa ñëw fekkee ibnu omar seet si ko mu ne ma naafi ñu dem ci marché bi nee na ñu dem marché mu daal di wër wër ba dellu siwaat jëndul dara ah ma ne waxuma ko dara beneen yoon ma ñëw seet si ko mu ne ma naafi ñu dem marché ma ne ko ah keroog moom dem nañ marché waaye yow jëndoo dara mu ne ah waa jënduwuma dara waaye gisoo lan laa fa jëlee mu ne ko ah man kay dëgg gisuma loo fa jële mu ne ko naafiq keroog bi ñu demee marché ñaata nit lañu romb ci mbedd mi nuyu leen xanaa xuma ne nuyoo bu ne tuyaaba ju rëy la xoolal mbokk moom noonu la déggee woon xadis boobu mooy dem rien que pour nuyu nit ñi kon tasaare leen ab nuyoo afshu salaam mi ngi noonu malheureusement nuyoo boobu sunu maam yi ñàkkoon nañ ci lu bari sunu ndaw ñi moom jël ko lem ko sànni fële am déet sunu maam yi bi ñu fi créé seen sant ñi sant da ngay gis ñu bari dem ah kooku njaay njaay mu ne ko jóob jóob ñu dem mbokk ndax loolu nuyoo ngeen déedéet ndax loolu daañ ko remplacer asalaamaaleykum wa aleykum salaam loolu la sunu maam yi daan def am naa nag bu dee ndaw yi tey eh booy sawa booy sawa mbëkkante mbëkk ñu dem ñu dem kenn nit ñi xalaatutuñu loolu waaye mbokk nit ñi da ngay nuyoo xataa teggee ni téléphone soo woowee nit ki da laa war a wax bismillah nga ne ko asalaamaaleykum mu ne la waaleykum salaam la ngeen di wax ngeen doo ko wax waaye te quatre-vingt-dix pour cent des coups de téléphone yi nit ñi waxante nuyoo amu ca ca loolu mbokk jurit yàlla xam fan la degré xadis ba toll am na xadis bi wax sax kii ñëw na leen kii ñëw di wax ak yow ci nuyu nuyu nuyu wala bu la neexee doo ko tontu. wala boo gënant bi mu ne bu ko tontu loolee kon mbokk ñu bàyyi ci waat xel bokk na ci it fitna axiru zaman nit ñi duñu nuyu lu dul nit ñi xam ca loolu mbokk da ngay gis ne mooy aada yi tubaab tubaab bu la xamul du la nuyu ngeen noonu bu la xamul du la nuyu boo ko nuyoo sax ci xamul bu la neexee doo la fay benn soxna nettali na ma dana bi muy doo ko dem France immeuble biñ daloon dafay ñëw ci concierge bi romb ko ñëw na ko bonjour monsieur waa ji ne këcc faalewu ko te su bëgg mu ñëwaat bonjour monsieur waa ji faalewu ko mais mais mu ne ko monsieur je m'adresse à vous mu ne ko j'ai bien entendu mais je réponds à qui je veux yaa ngi dégg yaa ngi dégg dégg nee na moom fa la jógee moom dootul nuyu ku mu xamut waaye mbokk lislaam moom jàngaluñu lool lislaam daf ne nuyul ki nga xam ak ki nga xamul yow koy tuyaaba rek ngay sàkku romb nga ko asalaamaaleykum waaleykum salaam fukki tuyaaba ngoog asalaamaaleykum waaleykum salaam daje nga ak fukki nit indi nga téeméeri tuyaaba ci la gën a néew amma ñaareel bi mbokk julit mooy yenent bi ne jokk leen la nga xam ne mooy seeni mbokk ca mbokk ak mbokkit malheureusement ak sunu jeunesse su tey bi xamatuñu mbokk li ñu xam mooy xarit li ñu xam mooy xarit waaye mbokk yàlla moo ko def da nga war a góorgóorlu sàmm ko da ngay gis nit ñu jëkk ña dañ ci dañ ko doon sàmm ndax ñoom comme milieu bi soriwul woon day gis lenn ci borom xam-xam yi di wax ne sàmm mbokk mooy ka nga bokkal ñeenti maam ka nga bokkal ñeenti maam ka nga xam ne bu ñu xoolee yéen a ngi daje ca ñeenteelu maam diggante boobu yépp ñooñu fa nekk da nga koo war a sàmm amma jeunesse su tey wallahi da ngay gis ndakaaru gi ñi fi nekk bokk benn maam ci xamantewuñu am déet nga xam ne seen ñaari ndey wala seen ñaari baay ñoo bokk benn baay wala benn ndey ci xamantewuñu mi ngi noonu amma jokk nga koy jokkit la ca borom xam-xam yi wax mooy am na ñoo xam ne jokk leen mooy la nga am nga bokk koog ñoom jël ci di leen jox am na ñoo xam ne soxluwuñu nga leen di jox waaye nag day leen nemmeeku di sol saw dàll di dem ci ñoom am na ñoo xam ne nii tamit xëy na loolu day jafe waaye del jël di wax lu baax ci ñoom rawatina tey bi ñu yàlla nattoo lii di portable yi ñu bari mun loo jóg dem ci ñoom waaye mën nga ko woo téléphone qu'il soit en France Kédougou fu mu mën nekk woo ko téléphone nemmeeku ko loolu dañuy gis ne ci jaamu yàlla yi gën a jegeel suñu borom ca la bokk mi ngi noonu yonente bi alayhi salaam nee na bi yàlla bindee mbokk mbokk dafa jëw taxaw ne yàlla maa ngi làqu ci yow de mu ne ko làqu ci lan mu ne ko xanaa ñi may dagg mu ne ko demal ku la jokk dinaa ko jokk ku la dagg dinaa ko dagg loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax ñetteel bi mooy wa atimu taam dee leen léeg-léeg ñam mbokk julit doomu aadama adduna am na ci ay priorité waaye priorité numéro un mooy mu am lu mu lekk am déet nga noonu doomu aadama priorité numéro un mooy na am lu mu lekk gannaaw ba nag lay xalaat fu may fanaan nag fu ma nangam ak i nangam mais gis nga ñoo xam ne les sans abri ak ñuy fanaan suufi immeuble yi amuñu fenn fu ñu mën a teg seen tànk waaye nag lekk moom su nécessité la donc nit ki nañ ko jox mu lekk jox lekk boobu dana nekk jël togg ñam jox ko falilahi alhamdu te nga gis ne am na ca benn bunt boo xam ne mi ngi ubbeeku léegi ci lu bari ci nit ñi gannaaw ba ko nit ñi fàttee ay zaman mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ki woor ba ngoon nga may ko lum dogoo nee na tuyaaba jëm am ci koor gi yépp yàlla dala koy jox ndax xam ngeen ne ku nekk war naa soxla lum lekk ba mu des ko woor ba ngoon wallahi maa ngi fàttaliku benn ci borom xam-xam yi saoudiye yi am benn waaye ci waa Cambodge yi ko posé benn question mu jooy ci jooy yi métti ndax da ko posé question mu ne ko waaw imaam ndax bu dee da ngaa woor ba ngoon amoo dara loo ndogoo ndax sa koor baax na ndeysaan mu jooy ci jooy yi métti ci am na ay jullit yuy woor ba ngoon du ñu am dara lu ñu ndogoo amuñu lu ñu lekk kon yeneen ci bàyyi salaam généralise ko donte ne ngëñali yàlla day yegg ci ku nekk loolu tax borom xam-xam yi dañ naan même bu leen wàjji milliardaire la nga jël ko dogal ko it da ngay am yoon boobee fëli la alhamdu ci zaman yi mujj yi jàkka yu bari nit ñi ñu ngi jël la leen yàlla wërsëgal di ko joxe ñu ci togg ay ñam di ko jox nit ñi ñu koy dogoo loolee mbokk buntu yiw la bu yaatu yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko waaye itamit du ne rek yem ci waa ji nga togg jox ko waaye miskin bi nga xam ne dafa war a joxe dépense këram nga dajeeg moom yëkkati deux mille francs jox ko mu dem jox soxna sa ñu dem duggi ñëw togg añ kan moo leen jox ñu añ yow yaa leen jox ñu añ kon it da ngay gis ne kiy joxe xaalis miskin fuqara mooy yaa ngi leen di jox loo xam ne nii dañ cey jël di ca lekk loolu mi ngi noonu ñeenteel ba nag yonent bi alei salaam ne bu guddi jotee day leen jóg taxaw ji naafila te loolu itamit mbokk ci la gën a gaaw a jegeel nit ki yàlla ci la bokk bal daraja yi gën a kawe yi yàlla dig suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam digu ko ci aj makka wala ay koor wala ay julli wala nangam bokk ñu lim ko wax wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda place bi gën a kawe bi nga xam ne kenn dafay taxaw ci jaami yàlla yowmal qiyaama nga xam ne mooy def ramm gu magga bu guddi jotee del naafila mën na ma jox la ko loolu it bokk julit dara melul ni naafila guddi fexeel bàyyi nga la waay fi nga jullee gée ba baa fi ngay jullee fajar loo man ci ay naafila def ko bu dee ragal nga yéex a yeewu fi nga jullee gee ba pare demal julli la nga mën ci rakka ma nga commencé ci ñaari rakka shafa ak witre ba ngay def waaye dem ba fukki rakka ak benn mi ngi commencé ci cinq minutes ya nga koy jagleel ba baa nga koy jagleel trois heures wala quatre heures de temps yooyu taxaw di ko naafila ku nekk la nga ca man nga xool ko saxal ko lum néew néew nga bañ koo bàyyi mi ngi noonu saxalal trente minutes avant fajar saxalal une heure de temps avant fajar saxalal bu dee loolu day xat nga koy def avant ngay tëdd loolee mbokk rasul sallallahu alayhi wa sallam ca la wax ci ni ñeenti yii day amul kenn ku koy taxawe lu dul day dugg aljanna ci jàmm mbokk dugg aljanna ci jàmm mooy lan mooy yàlla musal na la ci mbëggalu bàmmeel yàlla na yàlla musal ni ci yàlla musal na la ci jafe-jafe yay am bisu penc yowmul xisaab yàlla muccal na la ci siraat yàlla tabbal na la àjjana ci jàmm loolee mbokk dara melul ne moom su ko defee kon ñeenti mbir yi ngalawaay ñu bàyyi ci xel importance ba mu am importance moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu yegsee Madina loolu la jëkk a dénk ay saxaabaam mi ngi noonu.
أخرجه الترمذي وصححه. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم
kon mbokku yeneen bind yi ci tege bi ci jëkk mooy an tamimi daari saxaabi boobu radiyallahu anhu qaal qaala nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam addiinu nasiha diine day mooy laaye biir mooy ixlaas sincérité qulna liman hiya ya rasulallah ñu ne waaw laaye biir boobu kan la ñeel yu mu yàlla yónni qaal lillah mu ne ñeel na yàlla wali kitaabi ak ab téeréem wali rasuuli ak bi yonentam wali aimmatil muslimin ak ña nga xam ne ñooy njiiti jullit ña wa ammatihim ak seen mbooloo ma mboole seen axrajahu muslim bokk suñu borom day wax fii ne di wala yonent yàlla sax day wax fii ne diine day mooy nit ki sincère am ixlaas sellal saxaaba yi na ko sellal googu fu mu jëm mu ne mooy jëkk sellal sa digganteeg sa boroom mbokk sellal sa digganteeg sa boroom mooy nga gëm ko xam ne moom la ñu war a jaamu kenn waru koo bokkaale dara lépp looy def ci jaamu yàlla fekk yàlla rek a tax benn ngistal amu ci benn yeneen intérêt amu ci nga gëm tamit kattanam gëm ay melokaanam bëgg ko bëggeel goo xam ne doo ko bëgg keneen ku dul moom bëgg ay ndigalam doo ko yemale keneen ku dul moom nii la ñuy laayee biir suñu boroom nii la ñuy sellale suñu diggante ak suñu boroom gannaaw ba wali kitaab bi mbokk alquran dañu war a sincère ak alquran ñun ñoo gëm alquran ñun ñooy jàng alquran alquran di ñuy gidee naan leen gëm leen lii def leen lii bàyyi leen lii lépp lu alquran woote jëm jullit dafa war a ànd ak décision ferme ci fas yéene koo jëfe alquran mooy nekk njiitam bi koy gidee loolu moo tax ba bu doon nit ñi comprendre nañu woon naka lañu war a laayi biir alquran doo woon yooyu mukk ci dëkkub jullit ñu jël téeram yàlla ba sànni fee di attewoo leneen lu dul alquran abadan ndax laayi biir téeram yàlla boobee mooy topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ñetteel bi mooy yonent yàlla bi liñ yoral alquran rek lañ ko yoral dañoo war a gëm ne mooy yonent yàlla dañoo war a gëm ne du wax ci bànneexu bakkanam dañoo war a gëm ne lu mu digle yàllaa ko digle dañoo war a gëm ne lu mu tere yàllaa ko tere ñu war koo jël gën koo bëgg suñuy bakkan ay ndigalam duñ ko yemaleeg ndigali kenn nii rek lañuy ñuy laayee biir yonente yàlla ba ñetteel bi mooy njiiti jullit ñi njiiti jullit ñi ñaar lañu ña nga xam ne dañoo yor doxalinu àdduna bi ak ñi nga xam ne nii dañoo yor xam-xam bi teeti nit ñi mi ngi noonu nan laa jublu ci ñu yor doxalinu adduna bi mooy buur yi nga xam ne mooy buuru jullit wala boog ay gouverneur am ay préfet ni ñu nane ñu jiite jullit ñi ñooñu dañ leen war a laaye biir ca mooy topp seeni ndigal fii digaluñu lu xaram dimbali leen fii ak nit ñuy digal lu baax mi ngi noonu boroom xam-xam yi tamit lañ leen di laaye biir mooy ñu gëm leen ci xam-xam bi yàlla jaarale ci ñoom di leen topp seeni ndigal di bàyyi la nga xam ne mooy seeni tere bokk na ci itamit lépp loo xam ne nii jàpp nga ne ak njuumte la it nga laayu ko biir wax ko ndax it mën ngaa dégg leneen loo xam ne moo gën a jub la muy wax loolee da ngay gis ne bu sellee ci sa xol tuyaa bu ju rëy mooy nekk ca loolee bokk ne la ñuy laajee biirit borom xam-xam mooy bu ko nettali lu dul la mu wax kala way bu ko duural mukk booy wax waxal la nga xam ne rek moom la wax bul nekkit di tasaare ay erreur am ndax amul kenn ci doomu aadama yi koo xam ne mën ngaa mucc ci erreur soo gisee ci moom erreur soo ko munta woo nga la waay laajee ko biir bul nekk di tasaare erreur boobee. yépp da ngay gis ci laayi biir la nga xam ne nii mooy ay borom mi xam-xam la gannaaw bi yonent bi alei salaam ne wa ammatihim laayi biir jullit ñëpp ca loolu mbokk yonent bi alei salaam tënkal nañu ko ci benn kàddu mooy nga bëggal ko li nga bëggal sa bopp mooy jullit bu nekk war naa bëggal mbokk jullitam li mu bëggal boppam loolu ñaar la mooy jàppale ko ci lépp lu koy jëriñ waaye jàppale ko mu teqale ko lépp lu koy lor lii nit ki daf ci war a sincère ca bi nga koy def yàlla rek a tax mooy ki nga bëgg ci yàlla tax su muy sa mbokk jullit lépp lu koy jëriñ war nga ko mën a digal waaye lépp lu koy tere war nga ko koo mën a tere mi ngi noonu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bu mag boobee bu ñu xoolee xadis bi ci tege mooy xadisi abi hurayra رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه الترمذي وصححه الحاكم yonent bi alayhi salaam nee na li gën a bari luy dugal nit ki aljanna mooy taqwallah moo ko taqwallah mooy jaamu yàlla wéetal ko def ay ndigalam bàyyi ay tereem lii moo tënk taqwallah kii bokkaaleeg yàlla mënul am taqwallah ki jëful ay ndigalam mënul am taqwallah ki bàyyi ay bàyyiwul ay tere mënul am taqwallah waaye gannaaw loolu li gën a gaaw a dugal nit ki aljanna mooy jikko ju rafet xosnul xuluq xosnul xuluq doonte ni wax nañ leen ci dars yi passé jukk bu rafet mooy jukk bu dëppoog diine waaye bépp jukk ba safaanu diine rafetul rafetatul góor goo xam ne këram da ko yaatal xale yu jigéen ñi xale yu góor yi fa la ñuy nekk jaxasoo naan attaaya xal xal xal ah góor bay di wa baax waaye ak a bon du ñu noonu du ñu noonu ndax loolu muy def dafa safaanoog diine kon jël benn jukko ju rafet mooy lu dëppoog diine waaye it gannaaw ba lépp loo xam ne nii du lu xaraam nga masalaa ci nit ñi yaatal leen sa kër yaatal sa alal yaatal say lay biir loolee la gën a gaaw ci lu dugal nit ki aljanna gis nañ ne moom mooy loolu amma bu dee xadis bi nga xam ne moo ci topp mooy xadisu abi hurayra la ba tey qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innakum la tasauuna annaas bi amwalikum yéen mun leen fexe ba teeg nit ñi matal nit ñi ci seen alal walakin li yasahum minkum bastul wajh waaye na leen peeg ay na leen ëmb yaatal bi ngay yaatal sa karam ci ñoom wa xusnul xuluq ak jukko ju rafet da nga xam ne nii da nga leen koy won bokk yi nañ ci alayhi salaam day wax ne alal mun loo ko bari la bari la ba ku nekk jot ca mi ngi noonu yàllay dogal rek ñi ci war a jot nit ki am nay milliard am ko bokk ak moom benn maam musu koo lekkal dërëm am ko bokk ak moom benn koñ musu koo lekkal dërëm kon yonent bi sax mun seen alal mënul peeg nit ñi waaye nag am na loo xam ne moom mën nga ko mooy koo dajal woon ko kanam gu leer yaatalal sa kanam ci moom ba mu doon ku la ñeme ca beneen xadis bi nga naan tabassumuka fi wajhi aki axiika sadaqa nit ki nga dajeeg moom yaatal sa kanam ree mu ree rek loolu sarax la ñu ngi noonu loolu sarax la loolu moo tax ba rasul sallallahu alayhi wasallam ne ngalawaay fexe leen ba mu yaatu ci ñoom la nga xam ne moom mooy seen kanam yi ngeen di yaatal ak seen jukko ju rafet ja ngeen leen di won koo dajal won ko jukko ju rafet kooku da ngay gis ne ah yow day jox nga ko lu gën alal jox nga ko lu gën alal fuuf loolu la yonent bi kon sallallahu alayhi wa sallam wax ne ngalawaay nañ fexe ba matela loolu sallallahu alayhi wa sallam amul ko mës a jokkoo ak moom lu dul bëgg na ko amul ko mës a jokkoo ak moom sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne bëgg na ko ndax jukko ju rafet jom boole woon ñëpp mi ngi noonu.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن أخرجه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي رواه احمد وصححه ابن حبان
kon mbokk incha allah ci suñu li nga xam ne mooy suñu bind bu mujj dañu gis ne xadis bi ci jiitu mooy xadisu abi hurayra ba tey mooy anhu radiallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam almuminu miraatu axi jullit day mooy seetu mbokk jullitam miraatu axi mumin mooy seetu mbokk jullitam ba gëm mi ngi noonu ca mbokk jullit it dañuy xam ne bokk na lu jafe mbokk mooy yor melokaanu jullit piir saxaaba yi ñoo doon ay jullit mais ñun dañuy ñaan yàlla nangul ñu mbokk jullit boo xam ne dafa gëm yàlla dafay bëggal mbokk jullitam yiw foo dajeek moom gis ci moom ay défaut war nga koo wolaayu ko biir mais da ngay gis ne tey bokk ni li ñu gën a ñàkk mooy wa tawaasoo bil xaq wa tawaasoo bis sabr mooy laayante biir loolu nit ñi gën a ñàkk tey ndax jukko yi ni mu yàqoo ñu bari ci ñoom koo ci wax di ko lay biir mu gise ko neneen gisu ko kii daf maa yàpp gisu ko kii daf maa nangam comme la suñu borom di wax ca yéeféer ba wa ida qiila lahu ittaqillah aqazathu l izzatu bil ismi boo ko waxee ragalal yàlla ak teddaa nga ci bak ci bakkaar daal di koy jàpp waaye almuhim mbokk bu doon ñun ñëpp dañu comprendre l'islam da ngay gis ni nit ñi war nañu daje ah diw man day gis naa ngay waxe nangam ak nangam gis naa ngay jëfe nangam ak nangam woo soxna man day gis naa ngay doxe nangam laayu ko biir loolu mooy la gën ci loo xam ne dañ koy defaate ndax yonent ci alayhi salaatu wasalaam nee na julit julitay seetoo tey jii boo waree génne dox taxaw ci seetu bi mais lépp lu manque ci yow da nga koy gis lépp loo xam ne normalul da nga koy gis tëjuma samay bouton seetu bi dala koy won ila axiri peñewoo sa bopp seetu bi dana la koy won ila axiri ca loolu kon mbokk mooy la nga xame ne nii mooy la yonente bi alei salatu wasalaam doon wax ne jullit mooy kiy bëggal mbokk jullitam la muy bëggal boppam mi ngi noonu amma bu dee xadis bi ci tegee mooy xadis ibnu omar radiallahu anhuma qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almuminu alladi yuxaalitu nnaas julit bay dem di jaxasoog nit ñi wa yasbiru ala azahum di muñ lor ya nga xam ne nii moom lañ koy lor xayrun min alladi la yuxaalitu nnaas moo gën ka nga xam ne du jaxasoog nit ñi wala yasbiru ala azahum ca du muñ lor yañ koy lor axrajahu ibnu maaja bi sanadi alxasan wa huwa inda tirmidi illa anhu lam yusami sahaabi kon mbokk ñooñu génne nañ ko rasul sallallahu alayhi wasallam day wax ne jullit ñëpp a baax waaye nag bokk na jullit bi gën mooy ki nga xam ne day dem di jaxasoog nit ñi lor yu jóge ci nit ñi mën koo muñ ca mbokk na xam ne sooy nekkee ci biir nit di jaxasoog ñoom du ñàkk moos léeg-léeg ay lor yuy jóge ci ñoom di ñëw ci yow na doon dañ koo tey wala teyuñu ko waaye fokk ay lor di am mu ne nag ku mel noonu moo gën ki nga xam ni dafa daal di beru moom nanguwul a jaxasoog nit ñi te loolu mi ngi ëpp ci ñi yàlla may alal suñu borom mu ne ida an'amna ala al insan a'rada wa na'a bi janibi da nga gis koo xam ne mi ngi juddoo ci village yi yaroo ci quartier populaire yi waaye dem ba am alal rek ne seen pep dem dali almadi wala dem dali feneen tabax fa kër goo xamee ni nii daanaka benn mbokkam du ko jege benn mbokkam du ko jege loolu nag mbokk ay njuumte la yoo xamee ni nii jullit bi da koy war a bàyyi xel moo tax ba falilahi alhamd ci yàlla wërsëgal ngay nekk ni tub jàkka ndax gaa yi kooku la jaxasoog nit ñi ah kay booy dekkee ni tub jàkka juróomi yoon par bis yaa ngi nekk ak nit ñi di jaxasoog ñoom xamal ne loolu mbokk ngëneel mënta paase loolu lu waral loolu kiy jaxasoog nit ñi moo xam soxlay nit ñi kiy jaxasoog nit ñi moo xam soxlay nit ñi amma ki nga xamee ne nii dafa beru fële kan mooy dem di ko di soxla kenn du ko dem di ko diis soxla so di ko diis diis la nga xam ne mooy mooy soxla loolu di mbir moo xam ni dañ ci war a bàyyi xel bu baax am na xadis bi ñu mujj a jël mooy xadisu ibnu mas'ud qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama xasanta xalqi fa xassin xuluqi ay yàlla ni nga rafetale sama melokaan sama bind yàlla na nga rafetal sama jukko mbokk loolu tëje na ko bunti bi ngir wane ne léppi diine ñaari taxawaay la ci jullit war a taxaw taxawaay bu njëkk ba mooy effort ya muy def ba mën a baax te la ci jiitu mooy jàng ak yar sa bakkan waaye ñaareelu taxawaay ba nag mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala loo bëgg bëgg baax baax yàlla lay baaxal nga doog a baax suñu borom subhanahu wa taala mu ne walaw la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada bu dul woon ngi ni li yàlla ak yërmandeem kenn ci yéen du sell kenn ci yéen du baax suñu borom nag moo bind doomu aadama ci gën jaare sa ci melokaan fa bët war a tege fa la ko teg fa nopp war a tege fa la ko teg fa loxo war a tege fa la ko teg ahsana kulla shay'in xalaq lum bind rafetal na ko nga ne nag yàlla ni nga rafetale sama bind ba lu la teg tegee fa mu war a tegee samay jukko yi di yàlla na yàlla na ko rafetal yàlla na nga rafetal samay jukkoo ba jukko yooyu lu nekk rek tegee fa nga xam ne fa la war a tegee loolu kon di ñaan goo xamee ne nii nga la waay wattu leen ko bu baax di ko baril di ko ñaan fu ngeen mën a toll ay yàlla ni nga rafetale sama bind yàlla na nga ko rafetale samay jukkoo mi ngi noonu yàlla na yàlla defal ñu ko boole ñu ca jukk yi tax ñu texe àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli ala kulli xaal day wax rek ne kii dafa demoon ci jàkk ja di boole léegi nag biñ jullee ba pare mu jóg di liqaamaat pour boole julleem waa jàkk ji ñaaw ci moom njort bokk na la nga xamee ne ni moom mooy sunna boo nekkoon ci jàkka di liqaamal sa bopp it du looy déggal waa jàkka ji loolu moom du loo nekk loo xam ne ni da ngay liqaam pour waa jàkka yëpp di dégg parce que yow liqaam bi liqaam moom pour woo nit ñi ñu julli loolee su julli bopp rek la kon liqaam bi moom day yem ci yow waroo ko nekk di ko digtal waa jàkka ji ba baa ñu koy dégg loolu it mi ngi noonu ci it doomu aadama bi it léeg-léeg ci wàllu lëntit war ngay leeral masalan boo jullee ba pare jógaat taxaw di julli gis ñëpp di la xool nga ne ah ngeen baal ma ne damaa nekk ci tukki leeralal leen bu ko defee iskal boobu day teggeeku ci ñoom loolu daal jàpp naa ne mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam xam naa li ci des it moom ab laay biir lay laay biir rek seen benn waay bu ñu nekkuloon daa mën a jëw waaye bu commencé rek ñoom ñu fay lamp bi daal di tëdd naam xëy na loolu ay système la ca wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw bismillah mbokk yi waaw wala kulli xaal nit ki boo ko laayee biir mu ne la maandu woo la chaque ne manduwa ba mu lay wax it loolee du la lor ci dara maadaama kay am nga lu leer ci ne lii muy def moom daa safaanoo ak diine lislaam nga xamal ko ne ko ah yàlla day lii la wax mu ne la yow manduwoo xam nga ne loolu ci làmmiñam la jóge waaye yàlla ki malaaka moom xam nañ ne mandu loolu moom nekkul loo xamee ne nii lu lay lor ci loolu la mi ngi noonu la nga xam ne daal moom la nga xam ne moom la ñu war a moytu mooy lay biir goo xam ne day jur fitna bu gën a garaaw boobu day jur fitna bu gën a garaaw boobu su boobaa dañ naan la naqar lu ko sa xol nga dem waaye bu dul ne day jur fitna bu gën a garaaw boobu lañ la cay wax loolee moom day yokk sa tuyaaba waaye du ko yàq wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ñu ne di xàmbiiru léegi lu ñu def nga ne waaw waaw bañ pare waaw ala ku di xaal di xàmbiirul di xaam mbokk jotewul ak julli gi dara di xaam bi jotewul ak julli gi dara sunna la à part julli gi nekk julli gi à part loole bu ñu liqaamul woon am na sunna bu ñu bàyyi ci sunna yoo xamee ne ni dafa jiitu julli waaye firiwul ci ne ne julli gi dafay yàqu loole moom da ngay gis ne mi ngi noonu et puis lan mooy liqaam bi baaxul lan la tax ñu ne liqaam bi baaxul loolu xëy na liqaam boo déggul mënoo ko jugé waaye daal mbokk liqaam yomb na yomb goo xam ne bu ñu demee ba daje ca jàkka ja dëgg-dëgg war nañoo xam ne lañ fay wax war naa doon liqaam bu baax almuhim daal yàqul ci julli ga dara wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ndax ñi nga xam ne dafa dañu nekk di yalwaan ca dara dalu leen ala kulli xaal mbokk ñooñu du da ngay jël sa alal di leen ko jox déedéet ñay yalwaan ca xam ne mënuñoo liggéey nga nga koy jox mu des nag koo ca xam ki nga xam ne xam nga ko xam xaalam xam ne kii kët yàlla nattul na ko daf dafa am lum liggéeyee am lum liggéeyee ca sonn na ku mel noonu di faqiir nga jël sa alal jox ko fekk da nga koo xam xam xaa xam xam xaalam waaye dajeeg moom ci mbedd mi rek dara dalu ko comme léeg-léeg système bi gaa yi jël dañoo tax ah maa ngi ne dara dalu ma de kër ga rek ma amul dépense mbokk loolu ay ay système la yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ñu mel noonu warul leen jël sa alal di di di leen ko jox. allahuma daal ka nga xam daal xam nga ko mais ki nga xamul dara dalu ko mu ñëw di yalwaan kooku du jël sa alal di ko jox wallahu subhanahu wa taala aalam na mën a ko di xaal kon yaakaar na mënees nañu doy doo loolu di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain